des koy wax des koy dox des koy jëfe te lii lay taye jàmm mooy maanduti suñu sampee maanduti ci réew mi rek jàmm jooju ñuy wax euh, force rek macha allah nen euh, dina am am na solo yaa daal di la jaajëfal bu baax a baax euh, damay dellu ci Mohamed peut-être yaag Babacar ngeen xaw a jàkkaarloo mais laata loolu peut-être bu fekkee da ngeen di am lu ngeen di waxtaan ak sëñ am Euh, ci lu gàtt rek ñu déglu leen également. xam nga dama ko wax mhm. euh, bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla wàcce ko. Mhm. ndax da ko ne kamaa kutiba alal xam di xablikum kon am na ñu mu ko waxoon ñu ko jiitu. fële mu ne yuridu bikum allahu al-yusra wala yuridu bikum al-usra yàlla lu yomb ci yéen la bëgg waaye bëggul lu jafe. bëgg naa nag booy duggaat moom nga laal ci yenent bi. Mhm. alayhi salaatu wasalaam. ndax weer wii ñu toll ñëpp seen xel yi day dem ci màkka soxna nen na son excellence mu ko yaa sayda eh, léegi bi moomoo sëñ moomoo tànk nee naa ko moo ji moom tuwaar kàlla <laughs> waaye bi muy wax léegi di dugg ci sponsor yi mhm. bii daf ma cee intéressé loolu ndoxum kayaar mi ah bon ndax ki ko defar mhm. eh, day sénégalaise di jigéen nag moom mu ci gën a ñor day wane ne jigéen baax na góor baax na te comme ko Fatou di waxee naan ñun moom ci parti moom parti jigéen yi <laughs> waaw moom looloo tax ma bëgg maanaam mu neex ma lool ndax jàmbaar la te jigéen buy góorgóorlu ci réew mi li li li sama li monsieur le ministre wax léegi réew mi war nañ koo ubbi ba ku bëgg investir investir mhm. ku investir it ñu gunge la rawatina nag jigéen moo tax maa ngi ko ciy sollicité eh, madame Fall soxna Ndeye Kati yàlla may ko tawféex ci ànd gi mu ànd ak seen TV terewul nag ak ñu ànd ak yi fi yëpp ah kon jeex na kon sañ Mohamed mooy am ambassadeur bi kon sañ Mohamed waaw. kon neex na. ayca maa ngi kontaan ñëpp ngi apprécier sa waxtaan bi nga waxtaan léegi maa ngi ko gis léegi ci euh, groupe bi yal na yàlla euh, gën a yokk sa fasaaxa. amiin yaa Seyda yi euh, léegi la yegg si dab ñu ci jotaay moom itam waxtaanam neex lool. nee na man nee naa la yonent bi bu ñu tuddee turam sama xol day sedd lool te comme première jour la. ñëpp ñun la seetaan. faw ñu daal di bégal ñi ci yonent bi tabaarakalaaw sëñ Babacar. rasulun karimun ma sadaqatu fi siba waaw waaw ndeysaan faqad kaana yaxya amadaawu kahuulu waaw waaw sayid alxaaji maalik nee na abaanat law shaatul yahuudi bisummiya bayaanun fasixun wa nabiyu rajiilo dëgg la de laqad saaru xayral wara fa shafa bihi waaw kay nag daal dina commencé maa ngi ñaan képp kuy seetaan télé bi te bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ñoo ket jóg taxaw ma xam ne bëgg nga rasulullah waqad saaru xayral wara fa shafa bihi Oustaz Hamid Mbaye yëg nga ni waxul min al bid'i mustahsanaati xiyaamun inda zikri tulu'i samsi bokk na ci ngëneel yi bu ñuy tagg yonent bi nga ni bëri jóg taxaw ñu xam ne màggal nga ko laqad saaru xayr alwara fa shafa bihi waaw kay nii laa ko daan defee ci rasulullah yi di la bégal ngay kontaan nga xam ni bàyyu Fatima nga madinay nelaw ku sopp ya rasulullah yi ni ñëpp ni nii laqad saaxaro xayr alwara fa shafa bihi nee na yonent bi dafay wax ni monsieur le ministre bu leen xiiroo bu leen ŋaayoo yonent bi nee na sil jàppal jokkal man xataaka ku la bàyyi yonent bi nee na wa ahsin del rafettal ila man asaa ilayka kuy ñaawale jëmele ci yow bu ñëpp dajee nag waxulil xaqa na ngay wax dëgg wala walaw ala nafsika doonte dañu lay rey sayyiduna muhammaduna ñëpp ni li laqad saaro xayral wara fa shafa bi monsieur le ministre ndax dégg nga ma yonent bi nee na bu nit di wax ci yow lu ñaaw sil jokkal yonent bay wax de man xataa ka ku la bàyyi boo ko gëjee gi seeti ko boo xamul fu mu dëkk woo ko téléphone nabi nee na wa ahsin del rafetal ila man asaa ilayka kii ñaawal jëme ci yow Fatou Abdou nabi nee na bu nit génnee def revue de wax ci yow lu ñaaw nabi nee na balaa 24 heures yee mat génnaatal tal revue de presse wax ci moom lu baax waaye nabi nee na booy wax waxulil xaqa te na ngay wax dëgg wala wa ala nafsika doon te dañu lay rey sayyidi ya rasulallah jillin waylin taglin taglin bakli jobili tam tili sayyiduna muhammadu nabiyun karimun ma'asa qad isiba wa qad kana yahya amad awkol abanat law shaatu yahudi bi summiya bayanun fasihun yonent bi gën wa nabiyu rajilu laqad saara xayra wara fa shafa bi Oustaz Hamid wax nga ko léegi yaa Seyda wax na ko stabilité ci réew dafa baax dinaa la jox benn misaal nga xam ni kenn du rasulullah laqad saara xayral wara fa shafa bi sunu tërandoo ngay toog di laaj waaw nit lan la war a bañee yonent bi lan la war a def luñ koy bañee nabi baax na yonent bi maanu na yonent bee jegel aljana taaru na boo ko gisee bëgg ko buy dox nga bëgg ko boo fekkee jamonoom bëgg ko bu génnee àdduna ñu nettali la rasulullah nga bëgg ko ñaaneen moo rëy may ca ma faare dëgg la dëgg la yàlla la ñaane ko leeral weeru ndey koor dëgg la yonent bi moo maandu dëgg la yonent bi moo taaru dëgg la yonent bi moo saf yàlla moo jaraway moo jar di jaayu di jëm càmmal wala jaare laqad saaro xayral wara fa shafa bi oustaz Ami dégg li ma lay nettali waa Màkka l'islam wàcc na njool Màkka neexatu leen nabi da leen di déranger laqad saaro xayral wara fa shafa bi nee na ay sa côté bu ne yéefari jaar nañ fa ngir fay l'islam yàlla téye l'islam waqad saara xayral wara fa shafa bi yaa sayda nabi nekkoon ku baax am benn jigéenam bu tudd Zeynabu bintu Xazaana bokkuloon ci l'islam waaye léeg-léeg nabi daan na dem këram di fa lekkee ngir cofeel bi mu am ci moom waqad saaru xayral wara fa shafa bi monsieur le ministre loo ci xamul pièce bu ne tàndar nañ ko njool màkk ngir faat ko l'islam fay ya rasulallah yi laqad saa araa xayral wara fa shafa bi ñu yëg ni ndaw si daan nabi daan na dem kër ndaw si ñu wër nànk ñëw kër ndaw si waxtaan ak moom ni ko faatu yow dafa mel ni nabi daf lay seetsi mu ni léegoo léeg fii lay reeree ñu ni ko leen rek la ñu bëgg dañu bëgg nga fexee ba yonent bi nga posoneel ñu ko mu dee ñu ni ko li nga wax ëpp na de ñu ni ko boo ko posonee ñu jox la xaaju alalu màkkatal mu karama comme jigéen la mu ne d'accord naa ñu ni ko léegi nooy def mu ni bàyyil ma dugg ci gaañi laaj leen lan mooy lekk préféré dugg ci biir jullit ni di gëstu di gëstu bañ ñu ko nabi yàpp yëpp yàpp bëy moo ko ci gën a neex waaye ci biir yàpp bëy tànku kanam bee gën a neex ndaw si dellu si ci yéefaru màkka ni leen jëndal leen ma bëy bu ngeen ma jëndalee bëy rendi ko fees ko dinaa ko tooke invité ko reer mu ñëw bu ko lekkee dee ngeen noppalu mu noppalu man soxna si ma noppalu Moustapha way wi ñu lay way buñ ko wayoon keneen ku dul yow bu dee Zeydan maamuy Amran mu di kay way wi ñu lay way buñ ko wayoon keneen keneen ku dul yow kon mu alak kanuy way ak ka koy way ya rasulallah laqad saara xayral wara fa shafa bi nen ne ndaw si Zeynabu bintu Xazaana la tudd ñu jëndal ko bay jël bay bi rendi ko fees ko ba pare daal di koy tooke muy toggu béy bi di tooke bi quatre heures di jot mu rombante njol màkka muy dem ci jumaa ji mu nuyonte ak moom ni ko dama laa invité tey reer nabi ni ko déema teel a wax mu ni ko damaa am yëg-yëgu la xam nga lu ma togg tey nabi ni ko loo togg mu ni ko yàpp béy laa togg nabi ni ko ngani ma ak ni ma ko bëggee mu ni ko yemuma ci tànku kanam bi laa togg nabi ni ko kon tey sa kër laay reeree waqad saaru xayral wara fa shafa bi Cheikh Ahmed Zeynabou bintu Hasana togg ba ba mu ñor tooke béy bi ba mu ñor invité rasulullah mu war a réeré kër waqad sa'aru xayral wara fa shababihi am Zeynabu bintu Xazaana bàyyi ba ñuy julli timis mu rombanteeg na bi ni ko mbaa fàtte woo tey maa la invité reer nekkete booba magu makka yi tooke bi ñu jox ndaw si waxuma la lekk waaye boo ko xencoo dee magu makka yëpp nëbbatu ci ginnaaw rido yi di xaar bu nabi lekkee lekk gi bu deewee ñoom ñu fop ko génn ko kër gi sayyidi ya rasulallah yonent gisul ba tey sawara rahmaanu xaaliqanaa suuraatinaa fa xawaakunal karaamaati moo tax ñun ñaar dañuy rafet dañuy leer ku nu gis bëgguñu ndax doon Makka sallallahu alayhi wa sallam waaw waaw yonent bi gën seen turandoo gën saaro xayral wara fa shafa bihi yaakaara Seyda Zaman xoolal ndaw si togg ba mu ñor Mamadou ndaw si togg ba mu ñor nabi comme dafa bëgg Aboubacar mu ni ko tey dañu maa invité reer Aboubacar nee na bëggoon naa waa ji waaye bi nu àndee reeri kër ndaw si ci laa ko gën a bëgg yonent yàlla Muhammad ju liggéey ba pare ndaw si dogaale ko ni ko yow laay xaar moytul mu sedd rasulullaay ci mbaaxam ni Aboubacar Zeynabu mën la invité xoolal magu màkk yi ñu ngi ci ginnaaw rido yi di xaar na bi lekk bu lekkee ba noppi dee ñu daal jël sànni na bi ci kër gi toog ci palaat bi Aboubacar yegg si toog ñoom ñaar bi ñu toogee ndaw si daal di dox ba ci yàgg daal ni leen yéen a wax naa ko posone de te sama xarit la de njekk bu ne defal yow la ñu koy jox ndaw si béy bu ñu togg ci suba fees ko ci une heure ko ci quatre heures mu jëm cinq heures dix neuf heures ñu seral ko un ci guddi ñu daal di ci def poson bi tegal ko njool màkka tegal ko kuddu tegal ko fourchette jox aboubacar kuddu jox aboubacar fourchette aboubacar sadiq nee na guddi googu ku fekk woon njool màkka loo ko bañ bañ di ko bëgg ndax ni ko yàlla bëggee shaatul yahudi bi sumbiya nee na sunu tërandoo yegg si na kër ndaw si ànd ak Aboubacar Sadiq yonent bi gën seen turandoo gën abaanat loo shaatul yahudi bi sumbiya nee na xanaa xamoo ni yee jekku jekku jekku ba pare baale da yëkkati daraja doomu aadama ñu xam ne dañ laa tooñ revue de presse la tooñ la nabi nee na bul bind plainte di sosal sa gor nabi nee na bul bind plainte di defante ndax yàlla dafa wax ni yonent bi waxal ak gaañi yarhamu yërëm leen man fil ardi ñi ci suuf yarhamukum dina leen yërëm man fi samaay ci kaw asamaan yàlla nee na boo dee baale di jéggale nee na yoral ay milliards boo bëggee nit ñi bëgg la boo dul baale doo jéggale yàlla nee na du milliards yi boo ko doon dépassé nit ñi duñ la bëgg waaye boo yorul dara amoo dara di jéggale di baale yàlla nee na fi cofeel ne maa xam law anfaqta maa fil ardi jami'an maa allafta bayna xulubihim walakin allah allafa baynahum maa ngi laaj ana ñu bëgg rasulullah yi ya rasulullah dëgg la nabi tasul ngëneel dëgg la tasul yaakaar dëgg la xettali jirim la dëgg la alak ji noon dëgg la yërëm ji bàyyoon day teral ndaw day teral mag day teral dëkkandoo seen turandoo gëm abaanat la woo saatul yahudi bi summiya nen bi ñu tegee reer bi ba pare jël yàpp wi teg monsieur le ministre yaa ngi dégg jël kuddu ak fourchette jox yonent yàlla Muhammad nabi jël kuddu ak fourchette jox Aboubacar Saddeex yàpp wu ñu ñor togg laa wax ca 11h midi une heure deux heures ñu defar 3 heures 4 heures ñu togg 5 heures 6 heures ñu defar ba mu jekk timis bi muy dugg 21 heures ba 23 heures ndaw saa ngi koy posone tegal ko njool màkk ci kaw taabal ji na bi jël ñaari kuddu roof ci yàpp wi yàpp wi fente bool bi na bi roofaat ci yàpp wi yàpp wi fente bool bi na bi wax ci xelam ni xam naa kuddu laa maîtriser wul xaaral ma jël sama loxo na bi mag ñaa ngi nëbbatu ci ginnaaw rido yi di xaar mu dee na bi di tibb ci yàpp bi kii laa leen di wax kii kii waa ji waa ji laay wax jëlal ma ko kii kii laay wax ci yàlla solo wa rasulu kii la yàlla yónni wal xalil kii ay xaritu yàlla wal xabibu déggal bàyyi ba sag baara wal imam doone Cheikh Mbacke góor gi Saawlo Moustapha Caadlo Murtada bàyyi Serigne Fallou borom saaxibal kumala jaaraat ci benn par benn déggal loolu déggal loolu déggal loolu bàyyi Serigne Fallooy wax loolu bàyyi Serigne mun maami Serigne Muntaxaay wax loolu déggal loolu déggal Cheikhul Xadim sa yaakaar nee na xoolal waaju rafet ji sëñ Bamba nee na huwa kii ma jàkkaar loolu mu tëdd Medinatul Munawara ñu ne ko sëñ Bamba kan la mu ne annabi kii la yàlla solo war rasulu sëriñ Bamba nee na kii la yàlla yónni wal xalil sëriñ Bamba nee na kii mooy xaritu yàlla wal xabibu sëriñ Bamba nee na kii mooy soppe yàlla wal imaamu sëriñ Bamba nee na kii mooy leader bi Serigne Bamba nee na tegtal ngay wut njool màkkaa ngi nii déggal bàyyi basak baara doonay Cheikh Mbacke góor gi taawloo Moustapha Thiat loo Murtada bàyyi Serigne Fallou borom saaxibal kubala kii mooy maami Serigne Mountakha mi fi ñoon aljuma julli ñaari rakka yi nga xam ne Touba la départ ba Ndakaaru oto yi wàcc tali bi nga dégg sirène yi sap mu dugg Ndakaaru sagal kuy jullit julli fi ñaari aljuma yooyu lil Mountakha wajaftu fi Ndakaaru zikiran bi xat kub kibal makaaru la xat dégg loolu sabata anna rabbana lam yuri li mislan lahu mislan lahu mislan lahu la yuri li dégg sëñ Bamba góor gi nee na dégg sëñ Bamba maddalana al islam wal kufra maha wal kufra maha waxat saxaro wa bi nasiati li kulli samaa abanat lahu shaatul yahudi bi summiya yaa sayda nabi nee na nabi nee na ma teg sama loxo ci yaru ni xaaral ma dagg ci yàpp wi nabi nee na may kaate yàpp wi yàpp bi di daw kaata yàpp bi yàpp bi di daw na bi nee na man naj ko ci sama benn loxo di ko kaatawaat yàpp buñ togg ba mu ñor mu ni bërit romb ma jóg taxaw ni ma irfa ya dayka yëkkitil sa ñaari loxo yaa rasulallah yow sangu Makka ak Medina fa inna nii man yàpp wi nga bëgg lekk mas mumun dañu maa tookee abaanat law déggal ci shaatul yahudi bi sumbiya nabi nee ma tegaat sama loxo yàpp wi ni ma teggil sa loxo dañu ma posone abaanat law shaatul yahudi bi sumbiya monsieur le ministre pour ma wax la ci baale nabi woo ndaw si Zeynabu Zeynabu di tekk di lox mu ni ko Zeynabu bintu Xazaana Zeynabu waaxu ñëw nabi ni ko Zeynabu yow ni nga nekkee sama xarit cofeel bi ma am ci yow waaw Zeynabu yow kan moo la war a teg dil ba nga may teg dil bëgg maa rey lu xew mu ni ko lu xew nabi nabi ni ko Zeynabu deggal ni yàpp wi def mu ni ko nu yàpp wi def nabi tegaat loxoom yàpp wi ni ko teggi ma sa loxo dañu maa tooke bëgguma yow mal xiyaam nabi ñëpp dekk jinne yi dekki malaaka yi dekki doomu aadama yi dekk ñu may xool naan ma yow mii la njool màkka lekkoon daal di dee nabi ni ko Zeynabu lu la xiir ci lii ngay def mu ni ko sa ay baay yi bokk ak sa baay ci la ñu bokk mag ñi nekk mag ci la ñu bokk yaa leen déranger mu ni ko moo ñoo la jaral nga may def lii xoolal na bi ci maaxam mu ni ko xoolal borom ba bu rëy ba leen a la bokk xoolal kële ca la bokk xoolal kële ca la bokk xoolal kële ca la bokk xoolal muy muri rido bi kenn ku ne di génn mu génn ci buntu kër gi jibril ni ko yàlla nee na loo wax mu defal la ko yaay sangu Màkka ak Medina yéen ñaar seen diggante loo xalaat yi ñi def lii xanaa xamoon yàlla nee na bu la neexee léegi ma roof leen gémmentu ñoom ñëpp ñu dem tëddi kenn dootu ci yeewoo ay bët bu la neexee nabi ma roof leen paralysé kenn du ci yegg sa kër moo nabi bu la neexee ma roof leen feebar boo xam ni dañuy woqatu fu ñu toll nabi ni yàlla ma yaakaar ni da leen di naxtaan ba seen xol yi baax seen yii bu gëmul dina am kuy ñëw ci jamono dina tudd xaadimu rasul ci sama njaboot lay bokk dinaa ko tiitaroo dina am ku tudd alaaji malik ci sama njaboot lay bokk dinaa ko tiitaroo dina am ku tudd baay laay si lay bokk dina am ku tudd siiduna ci lay bokk yàlla ni ko nag ni ko wa innaka la ala xuluqin azimin ma ñëw kon yëg nga ni baale lu nekk ngi ci wuy ma damay bippe rek maa ngi ñëw wa aleykum min kulli xalqin salaama déggal tiafa xalqil ilaahi tuulal layaale bàyyi nee na fa kayfa laa dégg nga lool wa kayfa laa wa kayfa laa wa huwa al aslu li kulli jamaale nene wax naa la yaa sira ni ni ni ñu bippee neex na Mouhamed ni ñu bippee neex na yaram yi daw nañ kontaan nañ en tout cas on a vu euh, on a vu euh, monsieur le ministre euh, euh, kontaanoon nga lool on l'a vu vraiment euh, yaram yi daw nañ nit ñi kontaan nañ alors. Mm-hmm. tudd Seex Seydaaji Malick mm-hmm. tudd Seydina Limaamu tudd Maam Ablaye Niass mm-hmm. ñii réew mi Seex Umar Fuutiyu ñoo fondé réew mi mm-hmm. li ci neex mooy dafa def ramassage bu neex ki ma doon woo léegi xalifa alaaji baara la Serigne Moustapha moo tax diina ji yegg fii mu yegg ku leen amul réew mi du yegg fii mu yegg moo tax jërëjëf tañ nga plateau bi merci Mouhamed waaye dangaa woote merci alors yaa Seyda da ñuy ramassel rek rapidement ci lan lan ngay nar a ñëw ci weeru koor bi euh, soo toogee plateau lan nga a koor bi laata ñuy dellu ci Nafi ci ak euh, kii di Cheikh vraiment suñu xol sedd na xam nga ndeysaan yonent bi moom boo amee lu la naqare bu ñu ko bu ñu ko tuddee sax sa xol day day day day day day sedd Mouhamed macha allah yal na yàlla yeggale ndawam ak euh, suñu sag la sëñ Babacar barfakàlla macha allah te ne li nga xam ne loolu lañ nar a indi ci weeru koor gi tàmbali woon nañ ko daaw ñamali hmm. mais dañu gis ni gaa yaa ngi koy laajaat Mouhamed <laughs> mooy jóge ak weeru koor <laughs> loolu daal lañ dara indi gis nga <laughs> ma déjà mi commencé dugg ci rubrique bi jóge ak weeru koor nag bu ñu ko waxee mhm. maanaam euh, xam nga jóge mooy façon de faire rek mhm. waaw mooy euh, lépp loo xam ne yaa ngi koy def rek nga def ko ci façon boo xam ne dina jur njëriñte mais dinañ ci indi ay ay ay facettes yu bari xamidun euh, ci jigéen nan la war a taxawee ci këram maanaam euh, euh, ci digganteem ak borom këram euh, koor gi mu am ci yàlla mais diggante bi nga xam moom la nekk ak ak borom këram aussi mu mu am ci yàlla am ci ay tuyaaba ci wàllu njaboot gi mu nekk rubrique boo xam nag ñu bëri ñu ngi ko doon laaj ndax importance bi nga xam ni am na ko. Mm-hmm. na fi daaw yaakaar naa ñu bëri ñu ngi doon wax naan tàndarma sax xamuñu woon ne noonu lañ koy joxee Fat Abdou. Mm-hmm. biñ fi joxee tàndarma ji noonu. ñu bëri ñu ngi ma dox naan ma xamuñu ne sax tàndarma dafa am noo koy joxee sa borom kër ci weeru koor <laughs> donc waaw waaw <laughs> yëpp dinañ ci ñëw su amee ñu ngi ciy àndal aussi ci ay mag yoo xam ne am nañu expérience dinañ dem seeti ñoom tam ñu ñuy jàppale ci rubrique boobu nga xam ni euh, vraiment àddina yëpp ñu ngi koy xaar ñu nii moom yi ndax euh, moom moo ñu ko santoon te gis nañ ñu aussi intéressé na ko di ñaanalaale ki nga xam ne moom mooy euh, suñu président Bougane di wax li Hamidou wax sànq Mohamed nañu ko defal nañoo toog fii waxuma la sax euh, question actualité yi nga xam ni ci politique war nañ ko ko laaj mais ñun ñi nga xam ni ñu ngi wàllu jëngu ci wàllu diine ji boo bëgg nañ koo laaj nag bis bu nekkee président lan la préparé pour daara yi lan la préparé pour pour diine ji loolu ahamidun lu am solo nga wax ko nee ne bugaa na préparé toog fii monsieur le ministre toog ndax am na ay question yoo xam ñun waa diine faaw ñu laaj ko ko waaye ñu xam daal ci koor gi foofu laay fële incha allah ñu ngi koy woo ko mu préparé wu daañu ko na waaj faaw mu ñëw toog fi ñu jàkkaarloo ak moom laaj ko lan la préparé diine bu ñu ko falee def ko président en tout cas alors Nafi baara may ñëw ci yow dañuy dellu rek da ngeen ñu koy permetre ñu delluwaat ci euh, monsieur le ministre euh, je pense que euh, cette fois-ci damay jox kàddu gi kii di Ndeye faatu Ndiaye mu jàkkaarloog ak mosieur le ministre laata ñuy dem ci Cheikh waaw monsieur le ministre xanaa ñu ñëwaat ci fi ñu daaneloon. muy mbiru troisième mandat bi. troisième mandat bi dafa mel ni posture président Macky Sall mu ci ëpp fu la posture yi parce que moom. nanguwu ci àddu ba léegi waxagul ne candidat la mais nit ñi ñoo topp naan bul bul nekk candidat waroo ko nekk bul bul ko sax jéem